xamante ni déjà tey jii bu ñuy wax euh, ñu gën a sonn bokkuñu si euh, ñu leen di dolli ay salaire mais Pape Matar le but visé lan la baadu lu président Macky Sall doon wax euh, du mu loon jiñ Abdoulaye Wade si jamonoy 2011 2012 waaw que dafa nekk di corrompre magistrat ma jàlle troisième candidature am mais jeex na xoolal ma koor yi nga xamante ne ñoom la ciblé yëpp pour defal leen teraanga googu koor mhm. yooyu ñan lañu mooy ñi nga xam te ne ñooy descendre sur le terrain. Mhm. ñoom ñooy assurer maintien de l'ordre dégg naa fi ñu ni préfet dañ leen jënd ay oto yu bees da xam ne la. préfet yi boobu euh, yi euh, mhm. lañ ko waxoon magistrat yoo xamante ne dem nañu à la retraite depuis Mathusalem les jeunes magistrats sont là d'attendre. ñu defal ay contrats spéciaux. waaw ñu defal ay contrats spéciaux yokkal leen ko. Mhm. man yaakaar naa ne gis nga soo jëriñee sa réew ba 60 ans 65 jëlal sa pilière nga dem wékk ko nga toog ñaanal sa njaboot bàyyi ndaw ñi ñu def seen liggéey quelque part euh, sénégalais yi amuñu est-ce que sénégalais duñu les principaux responsables de ce qui se passe dans pays xam nga tax ma yaakaar ko moo di ne euh, président Macky Sall par exemple lim nekk di di def nii yëpp euh, rawatina ci ñii ñu tuddee conseil constitutionnel mais loo xam ne moom waxoon na ko en 2011 2012 bi ñu valider la candidature du président kan la woon sax lay Wade lan la wax daf ne Ablaye Wade li tax ñu valider candidature am mooy dafa yokkal magistrat yi ay salaire jox leen ay terrain ba lu luñ bëgg ñu def mais loolu mooy li nga xam ne moom moo nekk di xew ci réew mi ba léegi j'ai l'impression dans cette affaire que ni le président Macky Sall dafay xool li nga xam ne moom le président Abdoulaye Wade doon utiliser te moom mu xamoon ko parce que dénoncé na ko plusieurs fois ñëpp di dégg il est en de faire exactement la même chose euh, tey jii waxu euh, troisième mandat gi ñu nekk di coow xam naa dañu am occasion waxaat ci mais boo gisee dafa mel ne pratiquement tànk yi Abdoulaye Wade doon dox rek ci la doon ndox mooy dañuy toll benn étape boo xam ne vers la fin de son mandat tout le discours sera de faire en sorte que sénégalais yi nangu seen bopp que ni loolu naa mën a nekk man je dis que li sénégalais yi war a bañal seen bopp. mooy ñun euh, dire une chose très simple suñu yoon nekkul ci constitution lu mu wax ak lu mu waxul avant constitution le peuple sénégalais moo nekk au-dessus de tout cela te sa peuple sénégalais là moom la benn waay ñëw wax ak moom ne ko comme ni ko Awa waxee sànq soo ma falee dinaa def ñaata mandat ñaari mandat dem sama yoon peuple sénégalais boobu ne ko d'accord nag ak yow jox nañ la defal ñaari mandat dem sa yoon su fekkee dafa def ñaari mandat ba pare bëgg ji beneen di ko teg ci wàllu constitution c'est le peuple qui règle ça mais Pape dafa am euh, beneen point boo xamante ne li Moustapha wax xam nga tey jii moom li muy doon xeex yépp ci Abdoulaye Wade tey dafa ñëw loolu mu koy def ba pare doubler ko wala tripler ko sax parce que moom moo fi doon toog euh, naan Abdoulaye Wade du ñu nangu mu ñuy xoqatal na wàccee force de l'ordre yi si mbedd mi du tere ñu jàmmaaloog moom. Ah, aw Diop ci loolu. dañ doon wax manifestation. aw Diop. Uh-huh. ci loolu bàyyi ma euh, tagal la kàddu président Macky Sall 2011 2012. ci la ñëwal. ayca bismillah. waaw euh, monsieur Sall laaj bi moom xam nga ko mooy sa candidature naam nangu nañ ko waaye nangu nañ beneen candidat boo xam ni yow dàqoon nga ko nan nga ko gisee muy bu président Wade. waaw li xew tey ci réew mi mooy lii wolof naan li doon raam ci lii raam ci ñag bi la jëm. Sénégal yëpp xamoon nañ ni Abdoulaye Wade depuis ay weer a ngi mu ngi ci ay pexe lu ne mu ngi koy def yokk na soldo juge yi nekk conseil constitutionnel joxe na ay terrain lu ne def na ko. ngir ñu jox ko euh, validel ko candidature moom nag yoon ak sàttu réew mi moo ko dàq ci joŋante bi war a am ku waxul waxu nafeq war nga xam ni moom amul droit nekk candidat kon nag bu fekkee conseil constitutionnel bi nga xam ne moo war a nekk le juge des élections xam loolu ba pare teg ci tànkam ne moom dafay nekk candidat ñun dañuy dàq loolu te duñu ci ànd tey duñu ci ànd ëllëg te dàq nañu ko te danañ def suñ kem kàttan ngir loolu du fi amee waaye gis nañu aussi que moom njiitu réew mi taxaw ne tembe jël ay motukaayam ngir indi doole jaay ko askan bi conseil bi wax candidature yi immédiatement la ñu gis ay samba booy ñenn ñi ñu solo leen tëni ñu sànni ay xeer ci place bi nga xam ne mooy obélisque indi fa situation gêne de de perturbation au même moment police daal di chargé ay char à eau tour ndox ndox mu tàng nit ñi jaxase manifestation bi violente nit ñi gaañ nit ñi kon nag mel na nu moom ci doole la teg candidature am ci doole la teg fas yéene fokkarti li nga xam ne mooy kàddu askan loolu lañu ne ñun duñ ko nangu te it comme moom léegi won nañu yoon wi démocratie mënul am boo ko waxee du tëj waxtaan ak moom mënul sot adduna bi yëpp wax nañu ak moom nanguwul kon li ñu defee mooy ñu résister ñi nga xam ne démb ak barki démb suñu maam yi bi nooteel ñooy taxaw nañu bi ak ñooñu doon leen noot tey jii nag kii noot si ñun la bokk maanaam en tout cas ñoo bokk muy nit ku ñuul comme ñun. mi ngi mel ni dégg nañ ko Moustapha Diop kii noot si ñun la bokk dinañ jàkkaarloog moom di woote li nga xamante ne mooy résistance mi ngi mel ni résistance yàgg nañ koy woote ci réew mi. <laughs> moom kay dindil turu Ablaye Wade teg fa Macky Sall rek. nga jël Macky Sall teg fa Ousmane Sonko. non non bu la neex sa bàyyi Macky Sall Macky Sall di wax ak Macky Sall discours bi du changé. c'est exactement la même chose moom laa doon wax sànq c'est c'est non mais c'est extraordinaire euh, VAR mi am na solo ah parce que euh, li ma li président li Macky Sall di wax parce que à l'époque c'était Macky Sall l'opposant uh-huh. le candidat li muy wax c'est exactement ce qui se passe dans notre pays uh-huh. et yaa ngi tudd Ousmane Sonko qu'est-ce qu'on lui reproche mm-hmm. ba naan daf woote à appel à l'insurrection nangam ak mm-hmm. nangam dégg naa bërigi démb sax Mimi Touré di ñëwaat yooyu mais Ousmane Sonko utilise exactement le même mot que bi Macky Sall utilisé woon ab Ablaye Wade mooy. mooy résistance résistance. Mhm. mieux que sax am na beneen vidéo wu Macky Sall boo xam ne li mu wax dégg gu Ousmane Sonko dégg gu mu wax lu mel noonu. mooy mhm. si Wade persister. danañ ko déloger danañ ko déloger. déloger mhm. mooy lan mooy ñëw ñëpp ñu ànd dem palais fëkk Ablaye Wade génn sànni ci biti buddi buddi. sànni ci biti. Mhm. loolu je crois que opposant yi mu am moom àggaguñ foofu donc man daal vraiment Sénégal euh, <laughs> man parfois damay toog ma ne ma li ma jaaxal mooy pourquoi ñun sénégalais. yenn yi di ñu étonné man ce qui mhm. m'étonne c'est qu'on soit étonné par certaines choses absolument parce que lii fi nekk yëpp lu ñu gisoon la teg suñu bët mais nag mhm. euh, l'histoire euh, n'aime pas se se répéter de la même façon gis nga li nga xam ne moom la fi Abdoulaye Wade defoon lu mu jur li mu jur lii président Macky Sall wax fii loolu moo taxoon loolu moo taxoon moom président Macky Sall pour éviter yu mel nii di amaat pour éviter ay bakkan di daanu pour éviter police di charger ay nit. Mhm. pour éviter régime mu Ablaye wadd mhm. di solal ay nit ay tenue mhm. ñuy dugg ci biir policiers yi di rey doomu Sénégal yi. loolu moo taxoon mu ne bu jiite waatee bu jiitee Sénégal dina restaurer à l'état sa dignité. ñu ne ko loolu doyul mu ne dinaa fexe ba waxu troisième mandat kenn dootu ko wax ci réew mi dama koy verrouiller mu jeex takk on n'en mois de mars. fii lañ gisee ci Sénégal ñu sol ay tenue mhm. marron beige. Mhm. ànd ak alkaati yi wala gendarme yi président de la république nekk ci otom à cent mètres wala à dix mètres de lui ñuy dóor ay doomu Sénégal muy jàkkaarlook ñoom. te du duñu alkaati duñu gendarme. oui ñuy jàkkaarloog ñoom. Mhm. donc loolu on l'a vécu su su su mak su wàdd fii lañ gisee ay doomu Sénégal ñu manifester ñu duur ci ñoom ñu ay bal ñu daanu dee ba léegi kenn gisu kenn ku ci jàpp. du temps de Wade sax daa nga gis parfois ñu jàpp benn alkaati yi. dëgg ko ay temps mhm. affaire yooyu. absolument am na des gens qui ont été arrêtés. Mhm. am na d'autres qui ont été sanctionnés du temps de Wade. Mhm. mais fii depuis mars ak léegi neem rek bii doomu Sénégal. bokkee ci nguuru Macky Sall wala ñu wax ne dafa jege ci nguuru Macky Sall wala mu bokk ci takk dereeg yooyu moom dañ fi inquiété ne serait-ce qu'une seule journée. parce que dañu jàpp ne lii fi am wur fi woon am ndax responsabilité am la. gisaguma ko donc. c'est bien de rappeler ces choses-là. Mm-hmm, mm-hmm. pour que ñu xam ne les gens qui parlent dans ce pays. Mm-hmm. muy notamment ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci médias di wax. lii ñuy wax nii. c'est exactement la même chose qu'on disait en 2012. Mmh. mais je suis sûr suis que si on ressort les émissions yi nga xam ne man ak Awa Diop Ndiaye nii lañ ko toogee woon fii ci Walfadjri. Mm-hmm. en 2011 2012. Mm-hmm. on était encore plus jeune mm-hmm. lañ doon wax. donc qu'on le redise euh, cette année-ci loolu mooy le vrai problème. Moustapha euh, ma das ci